da ngeen jëf mbokk téléspectateur yi ñu ngi leen nuyu fi leen baaxoon nuyu saa su mi salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi tey xam ngeen ni mooy premier tour ci li nga xamante si nii mooy añoo añal yi maanaam ci foire réew bu ñu taxaw tey añoo añal nag boo ko déggee mbott yi mbokk yi mooy mboto yu góor yi ak mboto yu jigéen yi tey nag loolu leen di war a xool ñu ngi ni sama ginnaaw di jooy ñoom ñëpp waaye chargé de communication ba pare teg ci nekk sama consultant laay bàyyi mu nuyoo sama waaj maa ngi lay nuyu. waaw jërëjëf Seck di seen teewaay Euh, tey nag ñu ñëw ci catégorie bi nga xamante ni mooy agnelle moom ñooy jàll 36 euh, xar ñoo war a défilé ñu andi leen par 12 12 euh, loo bu nekk mu ñu war a nekk trois passages. douze xar yi ñëkk a ñëw moom lañ gis nii ay xar lañ yoo xamante ni foqaguñ benn xar booy xool amu ci doom mais foqagul waaw xar bu foqagul daal moom la moom lañ boole ci même catégorie ñu war a compétir nii ñoom nag kenn du leen natt kenn du leen mesurer dañ leen di apprécier jury bi ñoo leen di apprécier. yan ñoo njëkk a défilé. waaw ñoom la ñu wax ni euh, xar bu ñuy wax sexy mi ngi fi xar bu ñuy wax tapis rouge mi ngi fi xar bu ñuy wax linda. xar bu ñuy wax bari na xar yoo xamante ni ay ñaari guy numéro 2 yooyu yëpp ñu ngi fi te ñoom ñooy ñoom ñooy loolu. waaye añeel yi ñooy njëkk a yeeg añeel yi. yi ñooy njëkk a ñoom ñooy défilé ñu wane leen wane xool leen apprécier leen euh, catégorie bi nag xar bi ci gën a pare maanaam pare bi ñoo ci jublu euh, di nga nekk xar bu rafet di nga nekk xar boo xamante ni say cër lépp maanaam ànd na mais ba pare nekk na xar boo xamante ni amul benn jafe-jafe amul benn gàllankoor.

yàgg naa ko exposé et puis tamit euh, yàgg naa fee indi ay xar yoo xam ni wax dëgg yàlla bi may dugg ci élevage ni ma fekke woon kees ñu mu doxee woon ginnaaw ci élevage bi ak bi ma ñëwee dugg ci ba tey mu àgg si niveau bi donc mu ci am satisfaction. mais tey mu yem ak journée añoo añal yi ndax daa am loo présenté wala déet. waaw ah, am na ñetti añool ñetti añal yi ma fi dugal yoo xam ni samay production la. ku ci mel ni kan am na sucré sale am na ñaari guy de. am na miss kees. mais ñi nga lim noonu dégg naa ay espoir lañ ci Thiès. ah ay espoir lañ ci Thiès. Euh, ñi ñii ay ay ay añoo ay añoo añal lañ ñoom lañu war a dawal ñooy ay tëng espoir yi dañ leen di nat mais ñii kenn leen natt dañ leen di xayma ci bët pour xool seen avenir fan la jëm loolu moom moo tax. Pape Ba Ndaw ñu ngi sottu élevage muy def lu am solo léegi euh, ambition bi lan la. Euh, ambition bi moom mooy li may wax rek la ma waxoon laay kon ni di ko wax élevage bi kees dinaa ko delloowaat ca kaw mu nekk numéro un dans Sénégal donc tey ji euh, defe naa ni ci optique boobu la ñu nekk loolu moo tax ñu liggéey fi liggéey boo xam ni sama produit maa koy tas biir kees te ñëpp ñu ngi koy gis donc tey jii àgg nañu niveau boobu parce que tey jii ku mel ni avenir nekkoon ñaari xar bi gënoon a di ci Sénégal te bi mu ko amee mi ngi ko amee ci extérieur dem jongante ji euh, extérieur ñëw indi trophée boobu kees euh, donc loolu dafa am solo mu nekk xar bu am fi la juddoo kon donc loolu la ñuy liggéey voilà mais foire réew bi yaakaar na am na lu muy ci élevage Thiès li muy bari parce que réew bu mag la association bu mag la association bu yàgg xam li muy def la donc loolu moom moo tax association yéen yëpp ci réew la ñuy roy bu manque nag am na ay quelques ay failles mais après dañ koy régler rek jaajëf Faye. ñu ngi lay jaajëfal. on ensemble frère. ak ah, ah, maa ngi fay. tur bi. Mor Sock. sa teewaay tey ci ci bi lan la. maanaam membre laa ci REIT. association REIT ci laa bokk. di doon koo xam ne éleveur na bokk ci élevage bi. di yar am ambition di yar xar. di di yar xar. añoo añal yi ñuy présent ndax daam loo danga ci am élément bi déedéet sama sama xarit yi ñoo am ñoom Pam Ndaw ñoom ñëpp ci am ak ñoom Ablaye Fall ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf grand nuyu naa la waa ñu lay ziar waay mais ndax affaire yi waaye ñu ngi sant bu wér mais tey xar yi xar yi présenté xar yi wu noo leen gise waa macha allah fii euh, bon añal ñi vraiment macha allah ay xar yu am avenir lañu vraiment xam ñi un an rek vraiment xam naa dinañu presque def ay un mètre hein, presque waaw xam naa xar yu am avenir lañ quoi. élevage ci Thiès est-ce que mi ngi développé carrément. waaw vraiment macha allah macha allah élevage Thiès vraiment macha allah venu. na moom daw nañu bëri sax waaw vraiment. ñaari fois bu dépassé ak bii je différent. waaw mosuma gis fois bu mel vraiment.

waaw déwén femelle la ñuy doon. waaw d'accord déwén femelle la ñuy doon yeneen femelle ñooy ñëwaat. looloo tax actuellement élevage di ko jël par deux ans da ciy baax. looloo tax waaw waaw. jaajëf naa la jaajëfal. jaajëf waay champion. waaye maase wuñu léegi leen di boole. Ndeysaan gis nga leen noonu ñoo ngi leen raasale nañ leen nag. boo xool xari tey dañ leen a aligné ñoom ñëpp ñu taxaw. xam naa raa bi ñu leen def nag. ñàkkul ni amoon am na loo xam ne si bëgg nañ ko cee jàngale. ndax xar yi yi ñu añoo yi nga xamantene si nii ñoom kenn foqagu ci waye bo leen xolé seen jëkkaay macha allah da nga yaakar ni rek ndaysan ay borom ñu at lanu fekk at yi yëpp néew ndax kenn duggatu ci at ni nga leen gis ni kenn amugu ci at wa ñetti wër japp fukki wër lan amagul da gis leen nonu ku ci nekk yaangi taxaw ak sa propriété maanaam kii la ñu lay xol di leen waxtaan. gis nga tapis nag moom yaakaar naa ni bokk na ci espoir yi nga xam ñoo ñëw ci bi tapis rouge na a ngi koy ak borom moom moom xar mu miin la te boo ko xoolee nga xool ween wi xam ni <laughs> gone la daal nampalagul nampalagul waaye nag boo xool ci ginnaawam nga xam ni daal ñi ñi ñi bokk rek a ànd yaakaar naa ni box ñooñu ñooñu box Papi Dieye la ñu génne la paay ba ndaw box paay ba ndaw la ñu génne ndaween famille gis nga ko noonu. gis nga borom robe noir boobu taxaw yooyu mbokk yi mooy borom robe noir yi du ñàkk nag doomu ndigalam ci ndigal xam ngeen ni mooy bàyyi limousine nga xamante si nii moom mooy borom 119 doom yi suñ ko waxee xel yëpp dañuy ànd ak jaaxle waaye yaakaar naa ne robe noir yi bëri na si njaboot booy xool ndeysaan yaa ngi sa ginnaaw am te benn robe noir te propriétaire nee na ma lu compté na ci foofu lu mat 19 doomi ndigal a fi ma leen di fàttali ndigal daanu na waaye bàyyi na on a demandé aux propriétaires, on a des âges approximatifs Si âge approximatif ils sont ñu def en trois catégories trois catégories bi à ma droite à ma gauche et derrière moi c'est aussi simple que ça il n'y a rien de compliqué voilà. merci beaucoup. voilà. ndeysaan dégg ngeen ko noonu. Euh, mbokk yi xar màgg na. xar yi léegi dañ leen a sensibiliser defar leen ba nu mel ni doomu aadama yi. nañ leen tingom nañ leen fóon nañ raay nañ leen ramatulaay ramatulaay xar wax dëgg yàlla xar yi du musu yi. ña nga jëm nag war a dem suñu mbokki éleveurs yi asalaamaaleykum ci beneen concours tey jii di agneau di agnelle yi li nga xamante ne mooy innovation bi mooy dans un naturalité maanaam fexe ba ñépp tolloo dañoo andi ay noteur yo xamné biñu ñëwé ba fi la ñu xam ne ñooñu noté beneen business la ci ñu def ko ñetti patch yo xamantene ne benn foq si waaye si ay at xaw nañu si at xaw nañu magante waaye loolu du feñ ci ci résultat yi kon li ñuy ñaan ñëpp rek niñ ko daan ñaané sa su nek moy nañu jital xel yi té bañ jital xol yi té xamné buñu ci paré itam kii gagné moy élevage rek élevage yu Thiès élevage du Sénégal ñoo ci gagné. kon donc que le meilleur gagne la fête soit belle asalaamaaleykum wa rahmatullah. ma door na. mbir ma door na woonoon sax si. ndaysaan sax si nag tur bi moom. mi ngi noonu di wongu ndaysaan. wongu na dongali na. Eh, sax si jekk na sama waa Nguro sax si jekk na macha allah. Ah, macha allah xar yi eh, robe noir bi la yor mais nekk na xar boo xamante ni bu neex a présenté la ndax day mel ne eh, nekk ci catégorie bi nekk na tëng boo xamante ni boo ko xoolee foq foqagul ba pare robam rafet na te dayoom it allah. baysaan sax si gisoo ko noonu ma ma ngay meem nag waaye meem moom lu meemum xiif meem moom xam naa li mu tàmm nit la te waxoon nga démb naa am na xar yoo xam ne ay xar de case lañu. waaw loolu la mouton de case lañu te dafay romb koo xamante ni ñoo màggandoo waaw beneen xar bi ci war a topp nii ñoom moom ñoom moom ñoo màggandoo moo waral moom muy xanaa. Euh, jooy yenn jooy yi ndax xar bi mu tàmm nekkal la romb ci yoon ndeysaan te boo demee ñoo bokk gétt waa am gën na koo gis waaw ah, ñoo bokk gétt ñoo bokk gétt ñoo àndandoo ñëw fii ci site bi ñoo àndaat it euh, ci concours bi moo waral loolu noonu bokk na ci lu ko li gën a pett ndeysaan gaa ñaa ngi koy xool nag gaa ñaa ngi koy càmbar di ko xool xool xoolum xar nag da ngay tàmbalee ca wax wa jëm ca bëjën ba tàmbalee ca bëjën ba jëm ca genn nga xool guddaay bi xool njoolaay bi. waaw particularité bi mooy jury bi dañu ñëw ba fii ñu def tirage pour wane ñi nga xam ne ñett ñi nga xamante ne ñooy noté xar yi maanaam xar yi dañu ñëw ba fii jury bi tànn seeni tur dugal. ñu def tirage ñetti ñi génn ñoom ñooy noté xar yi. ndeysaan boo ko xoolee nag xam ne daa mel ni xar mu góor yëngu ci kawam maanaam bu doon olof daal bu doon nit daal man a jànq la xanaa. waaw jànq la waaye day mel ne am nañ tëbu bu ndaw xar yi fi nekk nii boo leen xoolee seen poil bi. xool seen morphologie maanaam seen jëmm di nga gis ni tëbu nañ waaye tëbu yu ndaw lañ tëbu yàpp nga ramatulaay lool de waaye ramatulaay moom xam naa ne kenn amagul luñ koy ndax mi ngi concentré ci caméra bi di def liggéeyam ndeysaan concentré waroon la def moom travail la xam ndeysaan ñu ngi koy xool den xool ween wi xool geen gi xool xool lépp duñ bàyyi dara au moins xar bi jury bi dina ko téye de cinq a dix minutes pour mën a xool dëgg-dëgg ndax xar bi euh, critères yi ñuy seet ci moom daje na ci loolu lu am am la ndax euh, concours bi kenn ko nat da ngay apprécier xar bi. tapis rouge ngo ndaysaan booy boo ko nag mbër la day bëre booy boobu yor tapis mbër la ñu ngi tudd Elton Elton la tudd booy boobu yor tapis rouge astafurlah tonnerre maanaam Elton tonnerre ko téye noonu tapis borom robe bu noir bi. waaw euh, booy gis milieu élevage ñëpp ngi ci. waaw keroog gis nga concours boo xamante ni euh, ancien lutteur ñëw na fi. mais également xar bi mooy tapis rouge ak sexe yi ñoo bokk benn gétt bu ñu jógee ñoo bokk benn borom bu leen moom muy rawaan nii. ndeysaan ñoom ñaar ñu ànd tey ñëw ñëw tomb ci géew bi. waaw ñu ñëw bokk catégorie daanaka seen magante soriwul ñoo bokk juddoondoo moo waral loolu nga xamante ne gis nga ni ñuy tourner xar bi jury bi dañuy xool ginnaaw gi xool kanam gi xool xar bi ndax tànk yi ndax xar bi bind bi ndax léppam ñëw na. nga xamante ni xar bu blessé xar buy soox xar buy nàngam yooyu yëpp am na ay euh, désavantages yoo xamante ni da koy jural am na ay points yu mu lay wàññil moo waral yooyu yëpp dañ koy càmbar pour note xar yi. man daal waa REIT laa xam ni regroupement des éleveurs intensifs gaa yaa ngi lëmb Thiès te à travers le monde entier foo dem xool sama waa ji moom moom mooy organisation bi l'infatigable. ndaysaan à travers le monde entier foo dem tey boo nee élevage xale tàbbi Thiès waaye bul fàtte Ngouda nag le grand fi la dëkk préfet fi la dëkk waaye bul fàtte tamit ndigal fi la dëkk kon Thiès bëri na ay champion yoo nga xamante si ni marqué nañ fi seen empreinte. Euh, moom. dañ lay wax ni le premier xar yi nga xamante moo sos laadum euh, laadum Thiès gi la sosoo ci góor goo xamante ni yàlla na ko yàlla dolli yërëm muy Passada si Passada si moom lay. histoire retenir que ni moy ki nga xamanteni moy le précurseur mom mom nak dafa jox ay éleveurs ci jamono bobu man nañ ci tudd ku mel euh góor gi Matar Mbeng yalla nako ko suñ borom doli wér mom tamit euh tudd ci ku mel euh maa ngay tur tudd ci ku mel euh bàyyi ma siga ñi yalla yàlla na ko yàlla mais mu nekk ño xamanteni tay man mën nañ tudd rogalat ci génération bobu di wacc tudd ci ku mel Chimère Diaw tudd ci ku mel ne doyen euh, Bara Mbaye tudd ci également ñoo xamante ni góor gi Assane Fall ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni tey ñoo marqué histoire euh, Ladoum ci début bi góor gi sàmba Diallo kenn du ko ci fàtte macha allah ndax moom am na lu bari lu def ci Ladoum moom tamit. xam nga yow Ngoné li ma bëgg la sama wet yow macha allah li nga def da nga ko maîtriser taxar yaakaar naa ne laadum cay Cees man nag gisuma fi asawat gisuma fi bali bali gisuma fi dara lu laadum rek laa fi gis de. waaw bu fi amee bariwul ndax am na ñuy tànte di métissé dugal xar yooyu nga wax raas yooyu ngir xool lan la leen di jox ak laadum yi mais daanaka lu néew la fi ci biir foire bi mais fii daal wax dëgg li ñuy koy faral di waxee nii laadum Cees la fekk baax tey ku fi ñëw di nga xam ni loolu euh, lu lu amam solo la lu wér la. kon daal su ma juumu Cees à travers le monde entier Cees bokk na ci les champions yi nga xam ñoo yor laadum. ah en tout cas xar yëpp boo leen dàqee rek maam fii lañ jóge cees mhm. waaw xar boo fi dàq rek fi mu ne nii te lii ngay gis catégorie bii di jongante li ci ëpp ñoo bokki maam it li ci ëpp ñoo bokki maam kon daanaka day mel ne xar yi euh, nekkee benn éleveurs yi noonu la war a nekkee benn daw aca kon ramatulaa demal ma ca gaaña ramatulaa demal ma ca xar ni ku loon am ndawal ku loon jaay may mu jël foire bi daal nekk fi xar nguura moo gën nekk fi nit nit ñaa ngi taxaw kenn raayu leen kenn foonu leen te bu ñuy tuur ndox sax ndeysaan na leen di defar ba nu jekk xar da len fi toppatoo ngoro ni ngeen toppatoo xar yi nak ëpp na. waa xam nga nit lu mu bëgg tay jaralu ko daanaka lolu bëgg day dess li boko gisee da fay li lié éleveur bi ak euh, xar yi lo xamantene la daanaka lu sax ci xol la mo waral euh, éleveur bi tay tay mboolem xar yi fi gis seeni borom ñi ngi taf seeni nopp buñ fi nekkul ci téléphone yi di déglu. mais également bu fekkente ni ñu ngi fii ñu ngi toog wala bu ñu toogee seen toogaay daanaka mënuñoo toog mënuñoo taxaw ngir lekk bëgg guñ bëgg xar ak euh, jaral gu leen xar jaral ndax lii liggéey la boo xamante ni ay de génération génération lañ ko liggéey ba mu egsi fii. Rahmatoulaye demal ma sa gaay sa kanam ñu ngay waxtaan su ma juumul nag yaakaar naa ne am na lu ñu war a lijjanti noonu boo xoolee ñi nga xam ñooy jur bi ñu ngay joxañante di wax xam naa ne du ñàkk lëj bu ndaw am na. waaye ñoom réyit moom même pied d'égalité la amul nga jugé nar amul nga jugé tuba fo mëna war rek bo ñëwé xar lañu wax mom dañ koy tok ci yoon rek yaakar na ni fii par parlo du ma ko fi gis man euh membre jury bi niñ ko teggé jëlé nañ ku nekk tiwaawon jëlé ku nekk Mbuur jëlé ku nekk Thiès jëlé ku nekk Dakar ngir bëgg rek liñ fi def mu saytu ko ba nga xamanteni dana euh, ñëpp bu ñu mën ci yee d'accord it danañ ñi ci ëpp dinañ ci ànd dinañ gis ni mbir mi lu jaar yoon la léegi nag ci biir loolu ñoom bi ñu yegsee ba fii comme lu ñuy apprécier la ngir bañ mu mel na ni diw moo tànn wala diw moo tànn ñoom dañu nangu dugal seeni tur ci biir euh, benn kii ñu def tirage ñett ñi ci génn kenn ki Mbuur la jóge kenn ki euh, Thiès la jóge keneen ki ci des éleveurs yi xamuñu ko un docteur vétérinaire la boo xamante ni privé la mu ñëw ngir ah, euh, teg ci loxo moom tamit mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy noté day mel ne kon day mel ne jury ni ñu ko tëggee ah, maanaam euh, jaadu na wala ànd na ba nga xamante ni ëllëg xar bi wax ni yaa day mel ne ni lu ñu mën a authentifier la. yéen Ndar Géej dëkku Lamine Gueye la ware la première capitale du Sénégal Saint-Louis boo ko xoolee moom ñu ñaanduroo Saint-Louis rek la. xar mi. waaw xar bi ndar la jógee euh, éleveur bu mag moom ko euh, tudd Yusu Aaj moom moom moom xar bi nga gis xar bi macha allah boo ko xoolee bu la waxee âge bi mu am sax ni la xar bi foqagul yow da ngay yaakaar ne xanaa ab femelle la wala lan. ndeysaan gis nga xar mi boo ko xoolee wax nga dëgg nguuda xar boo ko xoolee mën a koy teg te kii foqagul. waaw xar boobu dellu na day mel ne dañoo juum ci li ñu loolu. woonoon mi Miss Thiès a ngi nii. laa ilaaha illallah. xam naa xari góor yi nag fi mu ne bu ñu gisee xaw a jaxasoo. ndax na mu mel ba mu tuddee ko Miss Thiès ñoom ñoo ko xam. waaw moom moom xam naa ni xar bari comme ni koy junjee dinañ ko xemmeem lool waaye nag wax dëgg tey tey balaay xar di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko boole ci sa biir gétt. éleveur bu ko bëgg a boole. gis nga ko gis nga ko yëf yi jàpp lay def. waaw waaw da cee toll day bajantu. noonu la xar bu suuree bajantu ndax xar yi ku leen xool xam ni toppatoo nañ leen. parce que fu ne bu doon nit tey heure bi da nga koy fekk muy sampe ay sampe wala muy muy muy dam yee. waaw moom kay da ngay fekk que ni euh, bàyyil caméra bi mu lig caméraman bi mu liggéey wala caméraman bi. kooku ay Ramatoulaye. sama xar noonu laa tuddee sama oto bi. ah macha allah rahmatulah dinañ ko tuddee sax benn xar balaay génn foire bi incha allah. teg ci may ko fi jëkkër waaye gis nga mi sees mi boo ko xoolee xam ne daal macha allah ndaw la ndax ndaw moom nii lay mel ndaw day sawar boo ko xoolee nag jekk na rafet na macha allah te xam naa ne kuy moom la ñuy seet ñun ñu la ñuy wër. xar bi ki ko moom. 2015 euh, la ñëkk a exposé Thiès ñu def koy it bi à l'époque euh, muy Pape Iba Ndaw tey jii depuis booba. ba léegi bokk na ci éleveurs yi nga xamante ni foire bu mu dem concours bu fa am dina ci dugal catégorie yi. ndeysaan Pape Ba Ndaw bu ku mën a sonn ci élevage boo demee Thiali tey di nga ko fa fekk waaye boo yeggee ca kaw kër ga da nga da nga fekk armoire boo xam daa def ay médicament ba fees xar yee ko moom mooy ndaween ndaween famille yi ñoom ñoom moom xar mi ndeysaan magu magu magu Antu Njaay mi ci rompee njënt bi. mi loolu loolu la demee éleveurs yi nag koo ci gis saak ba muy gàdd boo ko xoolee fekk ca bagage yi xar moo xam ñu jëm ci garab moo xam ci yoon ndax xar ñett yi ñoo koy yor benn bi mooy euh, regg beneen bi mooy set beneen bi mooy wër regg bi mooy lekk gi set bi mooy entretien bi wër gi mooy euh, garab yeeg faj meeg yu demee ni ki yooyu kon loolu moo dajee ci xar moo waral éleveur boo dem am na boîte pharmacie ci biir këram te amu ko pour nit ñi. mais daa mel ñett yi nga wax daje na ci Miss Thiès mi. ndax yaakaar naan boo ko xoolee xam ne cat gi macha allah rafet na boo ko xoolee xam ne xiiful waaye boo ko xoolee xam ne comme toppatoo la comme joxe garab la. waaw ah, waaw macha allah xar bi euh, bi mu juddoo ci mbote fekk nañ ko këram comme xar yi ko jiitu sànq yi ñëkk a jàll mooy am yu ñuul yi ñoom ñëpp bu ñu juddoo fekk nañ leen seen kër ndax éleveurs yi chaque dimanche dinañuy dem di seetante di visité euh, ba nga xamante ne daanaka xar yi tey. éleveurs yi ñoo lay gën a sax xam ay âge am ñoo la gën a xam fi mu ñoo la gën a xam li leen composé ndax dañuy fekk seen i juddu. c'est bon merci. mi ngi noonu borom ñaari tur yaa ngi noonu. sucré ba pare salé. paay ba ndaw de mën naa ne bu xarit bu doon jigéen ma ne xarit cagaloor xarit bu doon jigéen. ma ne xaru cagala baay ba ndaw yor waaye xar bi moog bi jiitu léegi bi ko romb ñoom ñoo bokk moog Miss Thiès ñoo bokk benn gétt gu ñu yeewoo ñoo bokk benn borom nga gis ni kii nga xamante ni moo koy défilé daa jóge ba Dakar di di ko défile nga xamante ni ku miin ku miin défilé la te xar bu mu défilé gaañ dañ koy jiiñ ni xar boo défilé dina yéeg podium da koo xam xam na gis ko téye si kër sala teen waaye bu si kër sala bu doon nit yaakaar naa dina mën a défilé mode mode mode façon. gis nga xar yi boo xoolee seen cusi maanaam seen. Euh, ween cusi ween yi ah, ah, ah bu la yow. yu ndaw lañu yoo xamante ni da ngay xam ni xar yi bu ñu tëbooy tëbu yu ndaw lañ maanaam dara soppeeku ci pour confirmer que ni ay xale lañ tey nag boo xoolee dayo yi ñor. ak euh, seen njoolaay ak seen guddaay ci wàllu ren nga gis ni foqaguñ da xam ni élevage yu bees seexiwaat na ay jéego yu mag mag macha allah. ndeysaan boo xoolee anse anse sax boo xoolee ci anse yi xool karaw gi sax ci anse nga xam ñi ay gone lañu. waaw loolu karawu xale gi moo ci des nii ruusagul karaw gi fóotagul ruusagul mooy waral ginnaaw gi toujours karaw gi da gis ne mu mel ni lu kër la ba pare booy xool euh, bu màggee dëgg wala bu atteindre yenn âge yi di nga gis ni karaw yi. waaye Ngouda tur tur yi man ja war nañ cee ñëw tur yi sucre salé Ngouda sama consultant ba jóg na sucre salé bàyyi ko ci biir sucre salé ngoog sucre saf na waaye salut saf na paa bu ndaw bu doon nit man ay cagalanu ñu sees sucre salé paa bu ndaw toogal Ndawen family ndaysaan xar maa ngoogu allah jekk na nag te dégg nga ki ko dafa jóge ba Dakar ngir yor ko mu défilé ndax Rita a Rita Marley Jamaïcain. Rita Marley Jamaïcain baa Rita Marley gisoo ko noonu ndaysaan 11 xool ko ma ma nga wong ma nga dox xam nga Rita Marley doomu bopp Marley la su ma juumul su ma juumul doomu bopp Marley la Njambe Fall moo nga ko tuddee Youssou Ndour de maa nga tuddee ko doomu Amar Pen waaw gis nga noonu ndeysaan moo na ko moo tax rassemblement bi foto na ko moo tax rassemblement baa ngi koy foto parce Rita Marley bi Rita Marley dopp doomu bopp Marley ko tuddee <laughs> ñoo ngi koy seet Rita Marley ndeysaan sama consultant ba rasamaan bi noonu ma ngay foto Rita lu dagg lu ne morom ma ma seet rasamaan bi naka mu dëgg Rita Marley rek daa du juk xam katama doomam la ñu tudd Moura. junne waa Rita mii taxaw. ab jamay kaala de. waaw xar bi eh, ba tey Medine Thiès la. kooku neex show kooku neex show la bàyyi ko mu jaay tisaanam bi fexe ñam tisaan bi am na jinjeer am na. nga jaar fii ci ginnaaw Mbuuda yow itam. xanaa xale bi ah Mbadou. waaw miin foire rek xale bi daal miin foire yàgg dem ci foire yi macha seen xar yi boo leen xoolee ah. euh, di nga yërëm jury bi ndax xar yi fi ñëw day mel ni xar yu pare lañ ci langage yu éleveur comme ni ñu koy waxee ndeysaan ritaan nag boo xoolee xam ne moom it xale la ndax karaw gaa nga ca ancien te bu la wanee nii pour nga gis ween wa sax yombul weene wàccul ci seen Ndaw na yaakaar naa ne kon gone gi ngay wax dëggal naa ko ci retaam bi. dëgg la xar yi moom ay xari xale lañ boo xoolee ñoom ñëpp seen bu demee ba ci seen poche day mel ne lu kërle pour wane ne seen karaw xale yi dañ euh, dañ Ndaysaan Ramatulaay doon pause mi ngi nekk box numéro 14 Ndaysaan ñaari guy ñaari guy doo nekk noonu Pape Ba ndaw nag indi na ay produits tey. waaw ñaari guy dëb yi. Pape dafa amoon benn femelle bu yéeme boo xamante ni nekk na champion mu euh, tuddee woon ko euh, ñaari guy ñaari guy di benn euh, gox ci Thiès benn koñ ci Thiès sax ndax quartier bi ah caa petit caali la tudd mais ñaari guy boo demee dafa fekk ñaari garab yi tax sax fa léegi mu tuddee ko xar boobu xar bi nekkatu fi nag mu tuddee waat ko bi moo tax mu def numéro 2. te su ma jublu ki ko tuddee ñaari guy la dëkk. waaw moom la moom la mooy moom mooy paa bi am na xare yu fi jàll sànq moo leen moom. waaw ku ci mel ni Miss moo ko moom. Ah. ku ci man ni Sucre moo ko moom waaye tamit indiwaat na ñaari guudo. waaw muy ñetti champion yoo xamante ni danañ naqaree départagé. ndax euh, ni ñu mel. ñu koy xool ci lu yéeme la loo eh. xamante ni dana jafe bu lool. Ah, ñaari guy doo gisoo ko noonu ma a ba ca kanamu jury ba nag taxaw ka ko yor nag fekk naa ko box paay ba ndaw waaye ñaari guy mi boo ko xoolee xam ne am na yaakaar ci moom lool. waaw waaw xar yi fi ne yëpp kay li ma la sànq rek jury bi la ñuy yërëm ndax euh, âge bi ñu am nekk ay xale. Euh, nga war leen a apprécier war leen a noter day nekk loo xamante ni moom euh, lu yéeme lay doon macha allah. waaw noo na bi neex na de. neex na de man dama fay ñëw rek am plaisir yar xar quoi. dama fay ñëw rek am plaisir yar xar par par man pour man xar yu mel ne existé wuñ quoi mais boo fi ñëwee gis naa ay xar yoo xamante ni vraiment am nañ toppatoo am nañ. waaye Sane vraiment aywa sama xel daal mos boobu amoon naa amoon naa ndaw suñu zone boxam boo fa demee mooy bàyyi le directeur du commerce intérieur mooy Ousmane Mbaye moom it ñu nga exposé na. waaw exposé na mais Balza Bayzal Mbaye boobu du moom bi beneen Bayzal Mbaye la. boo xamante moo gën a féete kooku xale. mais xale boo xamante ni tamit macha allah boo ko xoolee tête nii la amul corne mais xar la bu bopp bi euh, li ñuy wax bopp bu damm noonu la ko langage yu vraiment bi gis ngeen ko coup bu dégagé la loos bi nga xamante ne xale la ci catégorie bi mu nekk waaye nag macha allah bu ay bu rafet loolu waaw yaakaar naa nag béjjén bu dam mu yàqu ko ndax jigéen la te jigéen yaakaar naa nag xar mu jigéen ay béjjén daal bu ko ñàkk rek ñaawlu ca moom non non sax béjjén damul mais dafa saxul béjjén wala bu saxee lu tuuti la waaw te élevage bi euh, xëy na euh, éleveurs yi xar yi ñuy bëgg wala di ko taamu bokk na ci xar yi am bëjëm mais loolu terewul dara yàqul dara ci concours du wàññi dara ci concours nga xamante ni tey avantage yi nga xamante ni mooy tax gañu concours loolu xëy na am na notation buñ ciy def mais terewul dara dara dara ci ay euh, kiyam waaw nguur kii tey boo doon xayma ay weeram nga xayma ay en tant que éleveur ngay xayma ay weeram ñaata weer nga koy jox waaw xar bii de xam naa ni diggante juróom ba diggante juróom ba juróom-ñaari weer. Euh, jàpp juróom-ñett gën caa bari. moom foofu la du ko génne daal foofu du ko génne incha allah. ma ngay wongu dem na. xam naa loolu ñu jëm dama ca topp. juróom benn weer la am. si mois. Momo Diop. ndaysaan na fee ngoog. na moom. Mbaadu na Mbaadu na fi na fi satu nafe gi astafurlah nafe seen ma ca man nafa allah tudde man nafe dox bi rafet na de waaw waaw nafe gis na ko ñëw na défilé xar la bu dal xar la bu dal boo xamante ni yëngu dox na ndànk romb sili bi wóoraat romb jili bi léegi nag taxaw na jili ba am koy jàppal ngeen nate ko dinañ xool bopp bi may ko ci point xool euh, yaram bi yépp may ko ci point xool jëmmi ji tànk yi xool geen gi xool lépp li nga xamante ni moom la suñ borom bind ci xar bi note ko moom moo waral euh, bu demee ci jury bi di nga gis dina fa yàgg lool pour ñu man koo euh, noté. Ngoné daal li nga xam ko mooy añel yi ma gis kenn ku ci nekk bu la yàlla may gudd fan wér mën nga am champion du monde. waa ñoom ñii de wax dëgg fa la élevage dina leen tiitaroo ji xaw ma fan lay doon waaye bu ñu guddee fan tuuti. di nga dégg ñu coow leen ci élevage ndax ay xar la yoo xamante ni yu pare lañ yu mucc ayib lañ. xanaa xamoon ni nguur doon na dafa fort te ñii li ma leen seen taxawaay leen ko doon ci seen i ndax yaakaar naa ni ko sa baay rëy sa yaay rëy foo toll da nga rëy waaye ko sa yaay baax sa baay baax foo jaar baax nguur waa xar yi fi daje yi yëpp day euh, boo xoolee mooy xar yi nga xamante ni élevage ñoom lay tiitaroo seen ay sët ay seen ay doom ñoom ñoo fi daje xar yi daal lenn rek mooy seen cat mooy ñàkkoo moom ñàkk gee moom daal mooy cat ñàkk cee moom ñàkk koo moom daal nga xamante leer la ni xar naf wi ñuy seet yow moomoo ko daal loolu donc mooy li ci dérangeant mais bu dul loolu moom xar na ngóoda daal soriwoo mi ngi am sept mois ki ko moom juróom-ñaari weer Nafi. la tudd. xar bi ki koy jëfile papaam moomu dugal ci élevage. Euh, xar la boo xamante ni wax dëgg fa euh, euh, fii la jóge moom tamit cees mais day nekk nii xar la bu yaakaar lool. ndax xale la ba pare gis nañ ci moom bind boo xamante ni wala cër boo xamante ni na lool waaw mais na li ma jaaxal mooy ñaari xar yëpp na fi leen tudd ndax dañoo bokk fu nu waree wala dañoo bokk cóondoo am dañoo bokk ndaay ak bay waaw euh, tur yi éleveurs yi bu njëkkoon di lañuy xool ci événement tey ma jël sa xar kër daal la koy tuddee wala nga may ma ci dëpp ma tuddee la ko bu juddoo dem na ba nga xamante ne dañuy xool xar bi jour bi mu juddu lu événement bu xew ci jour boobu ñu tuddee ko loolu mooy waral ngay tudd dégg nga fi ay xar yoo xamante ni tur yi ngénteli euh, euh, borom da doon ngénte xar ba juddu mu tuur ko lool et cetera et bu ne rek boo ko toppee am na lu mu lié ak euh, li nga xamante ni moom la borom di dund wala entourage yu borom moom moo moom moom moom moo fa nekk. waaw Ramatoulaye mii yaakaar naa du ko tuddee xar ci foire bi tey. ñëw na waaye dafa ñëw rek intégré. waaw moom jàmbaar la macha allah wax dëgg fa yàlla xam naa ni loolu nga ko fi bëggal du ko du ko jafe loolu nga fi bëggal buñ paree buñ waxtaanee du ko jafe balaay dem moom dina fi dina fi am ñu muy wat sant pantel incha allah. la bal ba tàkk na bal ba tàkk na rawatulaay may naa ko ci foire bi. déedéet kay Seck. merci may naa ko sama consultant ba. loolu baax ah fii waaw Ramatoulaye nit ku baax moom bu ñëwee ci borom millions yi waaw war na de mën a am jëkkër ju baax macha allah waaw. box numéro Abe Ngok Abe Ngok. woo noonu Ndeysaan. Ndeysaan mi ngi noonu meemut sunu. mi ngi noonu meemut sunu. boo ko xoolee da jox at yu bari. waaye abi dugagul sax fukki weer boo demee. mu taxaw devant macha allah rafet lool gàcc ñoo ngi koy xool mbokk yi foofu taxaw dogalukaay wala taxaw ñooñ ñoo koy xool foto ko xool wet gi xool guddaay bi xool faar xool tànk yi daanu jàkk xool nopp ndax këtul. jaan gi ndax manqué wul gars yi raay ñu xool nag asia karaw karaw gone ndax ruus na am déet laata loolu lépp yi xool nañ bañ ndax fokk nan fokk moo tax gaa ñi daal eh, xoolal ma lii ma lii ko tourné ko wóol ba tey ñu xool waneen faar wi faaru o bi la ñuy xool noonu ndeysaan ñu ngi koy seet Mbodale Mbodale wax na fi ab contrat ba dem Ngoné ma ne ko rahmatulahi laa bëggal borom éleveur bu mag mu ne ma jël naa ko benn yoon Ngoné def na ko séddale bukki ba bu bukki bii njuur bii samba bi ci des am njëkkante la bukki teg na ca loxoom gannaaw ko jugee ca mariage ba Ngoné ak rahmatulahi ña nga jëm nag ca ngéntali xar mi ngéntali la tudd. mu jógee ba euh, Euh, xar bi ki ko moom di tudd Modou Dramé mu nekk xar boo xamante ni macha allah ko xoolee gis nga ko tëbu na ba diis mais xar la boo xamante ni moom tamit euh, euh, ku ñu xam la manees na wax ni xar bi papaam. wala maamam ki jur papaam mi ngi ci biir foire bi. waaye ndeysaan ngéntali ngéntali yaakaar naa ne du jànq rek ni ma ko sënni. papaam it dégg na daal moom tamit. waaye foqagul la ñu wax. Euh, xar bi même bu doon nàmpal day mel ne foqagul daal. ndeysaan dégg nga bu doon nàmpal daal foqagul baax na. waaye ngéntali boo nekkoon jàkk ndeysaan mu war a Dakar ñëw taxaw Thiès bien vrai que ni champion la waaye laf cat yàlla ko yàlla may may woon sa dugg yi ndax waaye ko xoolee jekk na lool. waaw macha allah xar bi moom ñàkk ko moom rek mooy catam daal waaw boo ko moomoon xam naa ne rabatulaay li ma koy dugal bu sottee moom buy dem dina am xar yu bari yu mel nii. daa mel nag añoo yi nga xam ni moom lañ présenté woon daa ñëpp jaar nañ ci kaw bay wàcc. non des bi mi ngi waaj a ñëw. parrain bi parrain bi mooy kan. Mamadou Gningue directeur général ITCOM. Modou Gningue suñu partenaire la xam naa ne mi ngi waaj bu baax le suñu union de gala bi fii ci promenade de Thiès waa waa réew bëgg nañu jëm ci taabal bu baax ndax ñun suñu partenaire lu ngeen mës a taxaw ñu ngi tax. waaw incha na invitation bi ñëw la. ñu waxtaanee ko yéen la ngeen liggéey ci liggéey bu am solo fii ci foire bi xar bi Saint-Louis la jóge xool Linda mi Linda daa mel ko duus Linda mi Ndar la jóge ñëw ànd ak papaam ànd ak ay rakam Euh, wala seexam ñëw fii ci foire bi nga xamante ni daanaka euh, jooy yi muy jooy boo koy misaal day mel ne daa bëgg dellu ndar wala daa bëgg a dellu lool. loolu daal boo ko xoolee xam Saint-Louisien la de boo ko xoolee xam Saint-Louisien la ñoom dañoo nu ngoo rafet nu ngoo luus macha allah. waaw jonge moom xam naa ni ak yo yu ni demee moom ndar moom dañ cee toog moo tax xar bi gis nga muy wane ay muy wane boppam. boo xoolee xar la boo xamante ni moom it bu bu ñu bu bu bu euh, buy naqaree xanaa euh, euh, jugé lay doon wala buy naqaree apprécié lay doon ndax xar la boo xamante ni moom cër yi ànd nañ te ba pare xar la bu yéeme bu. waaw lindaa mi boo ko xoolee ak taayam bi man da man da lindaa jox naa ko ñaari at xar bi matal loolu xar bi matal loolu xar day fokk ci fukki weer ak ñaar xar fokk ci fukki weer ak ñett booy xool xar bi euh, bu matalee âge boobu it maanaam euh, foqagul ndax xar dina teel a xar yéex a foq moo waral ñu jàpp ni xar bi niñ ko xalaatee euh, eggul noonu. ndaysaan Ramatulaay Seydou Ramatulaay moo doon wax noonu muy Nguuda Nguuda. léegi xam ñoo jëm ci deuxième groupe catégorie añal ya am na ku ngeen gis ci biir géew bi mu yor benn téléphone di def vidéo mooy membre junior superviseur la jóge ba Dakar dañuy bëgg xar buñ fi jëw ëllëg ak si biir maanaam buñ demee ñoom toog di waxtaan xëy après xar bobu day fekk loo xamanteni dañuy am repère nga xamanteni ni wala génne woon nañ ko pour wane ni filmé woon nañ ko pour wane ni xar bi. ndeysaan ñoo ngay dellu gëttu góor ñoo ngay dellu gëttu góor ñu ngi dellu Goutier ñu ngi noonu dellu Goutier ndeysaan yàlla na yàlla cat may leen jàmm ma faal Gueye bu Binda Fall ndeysaan buuda xale war nañ ba dellu Géttu ga waaye du ñàkk tuuti ci kanam tuuti añoo yooyu ñëw wala añaal yi ñëwaat. añaal ba tey ñoo ñëw ndax catégorie bu bari lañ. buuda gannaaw ba xale yi war nañ dellu Géttu yo ndax añoo yi ñoo ñëw wala añaal yi ñoo dellu ñëw ba léegi concours bi jeexagul catégorie bi dafa xaw a bari. ñu séddale leen woo leen par loo woo nañ douze xar sànq ñu ñëw défilé léegi ñu ngi leen di xaaraat yeneen yi ci topp ñoom tamit ñëw bokk ci. kon teg leen foofu seen baaraam mbokk yi ñu xaaraat xale yaa nga ca gétt ñu ngi leen di woo nag du ñàkk ñu ngi génnaat léegi waaye xar yi ma gis fii man su ma delloon doon xaar sax tay du ma metti xar yoo xam ne rajo fóon fii laa ko gis ci waa regroupement des éleveurs intensifs Ramatoulaye sa jëkkër jaa ni mbokk yi gannaaw ba añoo def loo dem leneen yaa ngoog dugg si ñoom doxali ñoom ba dugg waaye gis ngeen noonu ndeysaan ñun ñëpp a jekk xaaru jigéen yaa ngoog jànq yaa ngoog hmm. te nii gis ngeen noonu ndeysaan rafet ba dee. trois ligne bi xoolal jànq yooyu taxaw ndeysaan xam naa ni su ma juumul yar lu ma yoon waaye kenn tëggoo ko ci. kenn ku ci nekk maa ngi xool ndeysaan say ci suween tuuti lool say a sax kare yoo xamante su ni kare gone la waaye nag mbokk yi du ñoom rek ñoo ci foire bi tey gis leen ñooñu catégorie boobu taxaw la ilaha illallah de ndeysaan bi gis ne loolu ci foire bi ñu ngi koy dalal jàmm di ko tatagal di ko jox wàccuwaayam yi dañ leen di sonal bu ñu ërdëg. di leen seet ba nu tooy. duñu leen dóor ku ci wopp ñu jàpp yóbbu vétérinaire toppatoo bu mu caayib di leen sang guddeeg ba ca suba ngoon fan tëdd boo demee sax am na nit ñoo xam ne faxaar yu di fanaan moo gën a set fan yu fan yu tëdd ñoom xar yi xeeñ ñu saw de déedéet toppatoo bu mu caayib ratu wanag wi suqi wanag wi yóbbu ci suñu bi toppatoo ba mu rafet.

ndeysaan sept mois et demi sept mois et demi la Adja ngoogu ndeysaan boo gisee borom euh, c'est un malien d'origine mais di liggéeyee fii Sénégal euh, nekk fii Thiès moo war moo moom nag bi nga xamante ni foire bi ouverture bi yaatu na lool macha allah. ndeysaan kon da nga wax maamam yaa nga Mali waaw xar euh, borom xar bi de moom cosaanam Mali la Euh, moom mu ñëw dugg ci laadu bi investir ci ba tey mu mën a andi produit ñu di ko euh, euh, boole ci concur bi muy lu am am solo. ndeysaan Adja taxaw nañ ci ña nga ca jury ba ñu ngi leen di xool nag Adja nag boo ko déggee xam ne Adja moom bërëm tur la ndax Adja bala nga ko dégg da nga def lu wéy waaye gisoo noonu boo ko xoolee da nga yaakaar mu ngi dugg ci atam waaye sept mois yi sax huit mois yi dafa manqué. waaw tur yi moom comme li ma la wax rek xew-xew mën na ko def tuddee say doom man na ko def à un moment donné éleveur bi day am problème sax ndax ku nekk da koy wax tudde wooma tudde wooma man mii tol nay jamono bu mbote waddee kër ga bu juddoo euh, waa kër gi sax ñooy profité bu ma profité wul jox ko tur ci biir bi ma koy jàppale xar bi pour mu nàmp ak yooyu ñoom bu paree mun la xar bi euh, tuddee nañ ko nangam te tur woowu moo koy topp ndeysaan tey dem ba boo jaaree ci turam wuyu la fi ne Adja mii bu déggee turam xam ni moom la ne woo. waaw éleveurs yi moom wax dëgg mention spéciale tàggat nañu xar yi toppatoo nañ leen defal nañ leen ba nga xamante ni mucc na ayib loolu macha allah. ndeysaan Adja ngoog te juri ba ñu ngi xool faar yi di xool bopp bi di xool bëjën yi ñu ngi xool tànk yi. ak fii moom du ñu natt dañuy xool njoolaayu xar bi njool guddaayu xeer xar xar bi. Eh, njool xoolaa xool cër yi ndax. Eh, yënkiwul na normal na xar bi pattul làggiwul yooyu yëpp dañ ko ciy xool li ñuy wax fano mooy ne ci suufu baat bi loolu it dañ ko ciy xool eh, day taaral xar nga xamante ni dafa am volet mensuration mooy wàllu cër yi ni ñu toll moom nga gisoon ñu ko doon nag ci édition yi passé mais am beneen volet boo xamante ni moo tudd esthétique esthétique nag mooy beauté beeg lépp li nga xamante ni ñoom ñoo ci lool ñoom ñoo ci nekk. ndeysaan Ngouda sama consultant bi moo xam xar. xar bi ci topp mi sama consultant bi moo xam xar. nanet mi ngi nekk bopp nanet borom tur bu neex nanet nanet mu daan faal. waaw boobu it borom fii la dëkk Thiès macha allah gis nga ko moom tamit amul péjën te nii la mais xar la boo xamante ne boo ko xoolee gis nga ni mbécc ween yi xar bu xale la karaw bi gis nga ko boo xoolee poil bi xale bi ba léegi dugub bi macha allah xar la yoo xamante ni xam naa ni catégorie bi dana naqaree tàggale lool man jur bi laa yërëm ndax xar yi fi njëkk a jàll ak yi fi. ñëwaat nii te ñu bokk même catégorie la leen di départager ba génne trois premières yi am nga soxla. mais nee na nii boo ko xoolee ak démb femme adulte yi fi ñëwoon femelle adulte yi fi ñëwoon mënaluñ ko dara. waaw dañuy neexoo ci gis-gis waaye nag euh, boo ko xoolee euh, su femelle yooyu boo leen delloosiwaat gis leen da yaakaar ni yow la nga wax li ngay wax di ak njuumte la woon ndax am na ñuy wuute waaye boo ko xoolee yor na dayoo xar bu mag. dafa pare nekk xale. loolu mooy particularité moo sax macha allah yàlla ko yàlla may gudd fan nga ne naar su ma gënal tekki dara. mu ngi noonu Dame Fall mooy propriété bu moo ko moom. ma nga sa jury bi nag. ña ngay xool faar ya. du xool làmmiñ wa. du xool nopp ya gisee ko mu kabar noonu ndeysaan. gisee kabar googu nga gis na nguuda kàbbal ko nga gis Ngouda koroog ba Albouri daje ki nga xamante si nii mooy jàmbaar Mbambe Kébé jàmbaar Mbambe Kébé da koo diir fekk Albouri war a fa ne fasu ñu wax jaare bu soq jaare jaare tak may sa becc loo tax Albouri wàcce fas yi loo ko bal mu daanu kon kàbbar googu euh, nanet kàbbar sànq yàgg na ci réew mi Ngouda loolu boo ko gisee da ngay gis ni xar yi Euh, ñoom moom seen bopp xar yi ay xale lañ xale mooy def lii waaye mag du jéem lenn li boo gisee ni xar yi lii day confirmer ni liñ la wax ni xar yi xale la loolu moom moo si nekk. neuf mois. waaye Sophie Ngor Sophie ngi taxaw nag ndeysaan tur bi sell na tur bi sell rafet na waaye moom it jëmm ji niroon na tur ndax moom it sell na taar ba rafet na set ga mat na waaye tamit yaakaar naa wëradiwul ndax ñëwul la ne yaa ci taxaw. waaw loolu lépp euh, ci biir concours bi ñu ngi koy bàyyi xel. xar bu fi ñëwoon ni laaj comme ni nga ko waxee wala mu ni yasat dinañ xam ni xar bi euh, euh, euh, am na lu ko dal waaye loolu lépp boo xoolee xar yi ni da ngay xam ni xar bi moom moom boppam moom boppam. ndeysaan sofee ngoog waaye nag nu mu yëgal ah, lii ah ndax dina baax Mamadou ñu ngi dañ ko war a jëli ndax gars yi du pause ci doom déet. dañuy dem ni jëli ji ko.

di leen encouragé ci liggéey bu rafet bi ñu def di sali di teg nuyoo yëpp nañ ci loxo président Diallo docteur Diallo moom ñëpp ko xam ñëpp ko xam ci dëkk bi xam aussi seen engagement ci liggéey bi ñuy def nii. li ñu def nag dafay lu rafet trop parce que ñuy organiser lu mel ni jël loolu teg ko ci parrainage doomu Thiès day nekk loo xam ni delloo nañ njukkal waa Thiès yëpp li ñuy def nag dafa nekk lu am solo lool nek lo xamni da fay encourager élevage fi ci Sénégal day encourager aussi la création d'entreprises fi ci Sénégal di encourager aussi la jeunesse à mieux aimer n'est-ce pas les moutons et à mieux aimer n'est-ce pas les animaux nek lo xamni donc lu ñu encourager la ñu jël ma nag teg ma ci kanam nek na lo xamni ñom no ñom la amal njukkal. man tay awma luma len di fayel ñu ñew ñëw bi su melni and ak ci ñom and ak délégation bi ma àndal nga xamni Dakar mu ñu joggé légui fekk ci wa Thiès ñu def une forte délégation bo xamni fi ak samedi dinañ ñëwaat encore and ak encore plus de monde té li ngay ñu defal dafa reuy defal ko wa Thiès defal ko xar defal ko ñi nga xam ñoo ci liggéey loolu awma seen fay mo tax tay ma ñëw li nag dafa war a lo xam dañ ko wara a gën gën ko amplifier gën ko jox valeur état bi gën ko accompagner je lance un appel donc à état bu dëkk bi mu jox gëdd événement yu yu mel parce que événement yu mel nii dafa revêtir une dimension culturelle revêtir une dimension économique revêtir aussi une dimension animation de la ville de Thiès qui a besoin de regrouper l'ensemble de ses fils autour d'activités et d'agenda annuel yoo xam ne tey lu mel dina tax xale yu ndaw yi xamul woon xam xale yu ndaw yi xamul woon mala yi gën leen a bëgg gën leen a jox seen cër du tee it ñi nga xam ne dañu amul liggéey wala am nañ ko sax mais bëgg a créer d'autres entreprises liggéeyu xar mën nañ ci à la fois jaamu yàlla mais mën nañ ci aussi liggéey ci xaalis liggéey ci am-am liggéey ci aussi diine donc kon maa ngi leen di sant leen gërëm leen gën a encouragé yu mel nii di wax ni que véritablement waa ITCOM yëpp yi ma àndal directeur ITCOM Dakar Thiès mi ngi nii ànd ak man Maxam Mbaye directrice administrative de l'ITECOM Dakar, Madame Diouf Ndiakendaou est là. Les militantes, nous avons aussi mouvement de main de Thiès, de Grenouille Soukoli Thiès dans le cadre du développement, de Diapoli Thiès aussi dans le cadre de l'émancipation, même si ça a une dimension politique aujourd'hui, le fondement est une dimension de développement et une dimension économique. Donc, nous melni ñu def ko bolé ñu ñun fierté la ci de Thiès fierté la ñun comme aussi ñu sommes ci ndax école la boo xam ne dafa ubbeeku ci métier yëpp c'est l'occasion ma leen di wax ni que tey bi ñu fiy dugg imaginer nañ yu bari yoo xam ne bëgg nañ ko def c'est l'occasion ma remercier waa Réy di leen excuser aussi parce que bëggoon nañ gën a mën a ànd ak ci liggéey xëy na jot bi ak connectivité bi waroon na am normalement suñu faute la c'est pas seen faute mais loolu début la rek jàpp nañu yéen à partir de maintenant ba at bi dëwal la foire de la prochaine 2020 nous koy àndandoo def que loolu dañ koy préparer maintenant comme continué la def affaire yu bëree bëri accompagnement bi ci jàng mi accompagnement bi formation parce que aussi entreprise bu téyee ko dafa laaj de xam entreprise Nous comment on calcule la TVA comment on ne mélange pas investissement et bénéfice L'on lépp nag bëgg nañu monsieur le président

et je sais qu'il y a au moins des milliers de de téléviseurs qui qui dëkk bi suñ ko agrégé ko a à ce qu'on appelle la création d'entreprise au Sénégal. Vous bu ni ñu organiser lu foire pour une vitrine vous savez, acteur acteurs yëpp dañ ci mëna a gis qui bopp ci ci acteurs yi l'acteur les acteurs principaux moy xam nga ni

mais occasion là également pour doomu ties yi nga ils sont méritants ñu jox leen vitrine possibilité pour que ñu xam leen dafa am nit ñu nga xam ci seen liguey ak ci seen jëf-jëf ay exemple lañu exemplarité bobu ci bopam lu occasion la li pour ñu woné ko ñu xam ko légui dañuy am contenté ci li nga xam euh monsieur Gningue euh, mbokk la ci ñun suñu parents la parce que frère ci bopam mi ngi suñu biir association nek na trésorier pendant plus de cinq ans ci biir association bi éleveur le moom également éleveur le. bu ko waxee bu ko waxul donc ñu pouvons koy inviter mu wut carte de membre bok ci suñu activité ndax lu def lu yokku élevage bi ñi def quoi qu'on puisse dire entreprise le wax nous dinañu dimbalé ci comment gérer une entreprise loolu aussi dañ ci am contenté ndax suñuy mission formation également de ci bokk en matière de ni ñuy yore xar mais également en matière de comment gérer notre entreprise loolu yëpp aussi day am solo bu ñu demee seeti ko mu kontaan ci lool dem na sax ba xalaat ni ci école bi ndax jàngale rek mën na yaatal est-ce que du def module bu nga xam ni day jàngale ci wàllu élevage loolu yëpp aussi day yaatal ndax aujourd'hui fi ñu toll xale yi ni ñu mën a mel li ñu soxla jàngale bi nga xam ni euh, science fondamentale ils ont besoin de faire ci école yi génn ñu am ay métiers yu donc lool ñu monsieur ñi ngi que ni ah, aussi nous sommes ta famille donc les poulets sont sa loxo donc on est derrière vous woné la woné sa pour que vraiment euh, exemple bi nga xalé yu bëri mu nit ci roy suñ war rek am lepp ndax euh, dara ju juway man dam soko wacce ngir jëm suñ war rek sa dara ju yok kon cheikh mi nu boole ci yef yi tudde ko sunu kilifa muy serigne Cheikh Fall digal di jambar yoon di xel ko ñu ñew teewal ko fi tay nga ñew tay ji ñu tudde le bés bi yow serigne ñing nan nga tudd sax serigne Mouhamadou ñing ñing tay ji nga ñu le bi ñu ñew fi te ngay taalibe bi Sëñ Tuubaa nuy jëwriñ ñuy taalibe ñun tam di jëwriñ ci yoon wi kon ñu ngi sant loolu di la ñaanal lii yàlla na ci yàgg am ñoom ñii itam di ay taalibe te yàlla rek tax yàlla na leen ci yàlla jox suutura soo xam ne ndax moom mii soo gisee ñu sawar a ñëw ci bis bi moom day def gàmm gu jot ci xar yii mu jël ci menn mu toll nii indil ko sëñ bi barke Sëriñ Tuubaa waaw indil ko indil ko sëriñ bi su ko indilee sëriñ bi taalibe ya fa nekk da koy indi ngir yàlla taalibe yëpp yëg ko kon moo tax tey jii danoo am fu nu waroon a dem sax waaye démb bi may wax ñemewu ma ko wax ne ko danaa dem barab bi ma waxee ne bis bi pour sëñ be ma ko kon baax na ñu ñëw teew fi ànd ak magi taalibe yi ànd ak sama rakk ji Cheikh Fall ak Badara Mbaye mi ak Moussa Mbaye mi nga xam ni Cheikh Fall ko yar suñu waajur ñu teew teew fii ak suñ Badara Mbaye mais ñu teew fii teewal fi jëmmi sëñ bi waaye teewal fi yoon wi ndax yow mii teewal nañ la fi liñ la fi fekk-fekk ndax am nga lu dul sëñ bi te ñun tam amuñu lu dul sëñ bi te itam loolu wan nga nu ko ci sukkee bi ak saraam bi dañoo wan ni sëñ bi rek sëñ bi rekk la ñor nun nag dara feesu suñu bët lu sëriñ bi ñu am moom la beneen doo ndax ndax damay wax toujours ne adduna ñett yi ku yàlla bind yaa ngi ci nit ki dana am wërsëg baa mu jur doom mu am ko baa doom jëm jur jur ku ko am loolu ma lay wax am na ci loo ci xam ndax xam nga ñoo xam ne laataa ñu daa añ daanañ sonn tey nga gis nga ko fu koy jaay million ci bitik par weer par jour par jour wala bu weer dee ñu fay ko million kon lii nga xam ne mooy bénéfice su taalibe di njëriñul taalibe mooy lii ngeen def kon ñu ngi leen di ñaanal seen taalibe gi yàlla ko yàlla gën a dëgëral waye li ngeen di def itam yàlla ni ngeen fu dem fu ngeen ci dem mom mi yàlla na fa am ndam lo xamni ñepp dañ koy xam ci barki seigne Touba Cheikh Rafa ñu ngi koy sago ñu ngi koy sago di ko tiitaroo jeew dem xam 26 xam mi mi ngi tuddi souvenir souvenir souvenir su waxee dem ci woy turi ay do souvenir souvenir souvenir souvenir souvenir voilà euh defena ni dernière. Euh, moo nekk noonu moo nekk kii groupe yi ah. mooy jeew moo ci. voilà moo tëj. moo ko tëj kon nii ñu bees la. ñii ñëpp def la nañu. def la nañu voilà. jeew. ndeysaan. léegi ñu génnee yeneen champion yi ah. Euh, beneen xar bi mu jur mi ngi tudd Elisa. Elisa. Elisa. mooy mujjee. waaw Elisa. Euh, Thierno ñaaw moo ko moom. ndeysaan mu dem ci. suma xel dem ci woyu Pacheco lay gombe Elisa Elisa ma Oh, Elisa Elisa, Elisa. ca voilà donc euh, DJ Pi. je crois que donc le dem après du deuxième euh, ci troisième et dernier lot troisième groupe acca euh, troisième et dernier lot donc troisième et dernier lot ma ne ko bu ngeen Mambita Bozal Baizal, trophée bataille pour Baïzal. également Mabel pour Alassane Mambé Mamboy pour euh, Malik Diop, euh, Bousso Bali, ñaari championne il nous reste deux championnes il nous reste deux championnes il nous reste deux championnes ñaari championne des na ñaari championne Voilà. Nous sommes les champions. Nous sommes 12 de la C'est C'est bon C'est bon C'est bon, C'est bon? kon que euh, ñu défilé la première championne elle s'appelle Malika Malika Tachileko leen ko numéro 135 vieille taille moo ko monde. Tachileko, vous défilez. défilé Malika ñu defar groupage yi ma leen nga xaaral tuuti voilà kon xaar tuuti. boo ko moom daf si wëree amul tur. voilà mu ngi noonu souvenir défilé na taxaw devant les membres du jury ñu nga ca note ya ñu ngay noté souvenir souvenir souvenir

waaw di ko rafetlu ndax parrain bi ñuy fàttali ni dañuy delluwaat tuuti ci choix wu parrain bi critères yi dafa bari lum ci remplir wala yëpp la remplir ndax euh, njëkk dañ ciy soxla mu nekk koo xamante ni il est de Thiès natif de Thiès beneen bi ci des muy koo xamante ni éleveur la euh, beneen bi ci des rëy dafa am activité bu muy def euh, chaque tabaski bu jubsee muy opération tabaski parrain bi bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo fay ëpp lu ñuy jënd si ci ay xar loolu ak euh, édition foire yi weesu parrain bi day euh, soutenir euh, le rëy financièrement yooyu yëpp bi mu dajee nekk koo xamante ni ku social la mais beneen bi ci des it mu nekk koo xamante ni temple bi nga xamante ni moom la jiitee ndax ku ne xam ne am xam-xam moo yor réew mu yor daara ju kawe joo xamante ni dañ yëngu ci wàllu googu yooyu yëpp moo daje ci moom moo waral ñu def ko parrain bi mais huitième édition bi euh, macha allah monsieur Mamadou Ngingue directeur ndax am sonn ndax am coono yi euh, logistique beeg taxawal lii lépp loolu la ñëwoon di ko xool mais macha allah euh, kàddu yi fi yëkkati am na solo muy ay bourses yoo xamante ne dina ko jàppale éleveurs yi membre réiti waaye Elisa moo ñëw noonu Elisa moo taxaw noonu ndeysaan boo ko xoolee nag ma nga ca jury ba ña ngay xool wet di xool guddaay ba di xool réyaay ba moom Elisa waaw ci wax lu bari mooy que ni ki nga xamante ni euh, moo ko moom di maam Thierno Niang nekk fii Thiès xaritam bu nekk Mbaaw euh, Balla Gadiaga soxnay Balla Gadiaga la tuddee xar bi moom dafa jëloon ay xar foofu euh, wala dafa jëloon benn xar foofu muy BBC jóge foon Mbaaw ñëw BBC mooy bergerie Baye Cheikh. Euh, bergerie Baye Cheikh boobu la jëlee woon xar bi bi mu ñëwee am ci produit yi mu tuddee ko delloo ko njukkal kooku nga xamante ne moo ko joxoon euh, produit yi mu tuddee ko do euh, soxnaam muy Elisa. waaye nag boo xoolee Elisa ndeysaan ma nga teg ñetti der ca kaw ay lupp ay ay ay mandarga yoo xam man mandarga yooyu daal ci xar laa lan la. waaw loolu. ba pare am ay tampon yu noir waaw moom. moo ñëw boo gis ni am na lunette xar bi booy xool trophée mi ngi ñëw waaye trop mën nañu wax ni Dakar lay jógee ndax euh, foire bi ouverture bi dafa yaatu bari na xar yoo xamante ni sax seen ay borom amaana dëkkuñu Thiès yeewoowuñ Thiès fu nekk ci Sénégal béléfoor jóge na fa ñëw teewee euh, foire bi particularité bi nag mooy ku jóge feneen yaa ki fi nekk yéene yam même pied d'égalité même traitement da ngay am droit dugg ci concours am droit bokk ci concours mais trophée mi boo ko xoolee yaakaar naa tur bi du ñàkk baayam wala yaayam daa jóge ci foire rek jël champion mu juddu ci ginnaaw laa yaakaar naa loolu war naa sama tur bi ah, yi moom éleveur bi toujours day chercher wu tur boo xamante ni buy neex a jàpp la boo xamante ni ko dégg mu capté ko ba mais également loo xamante ni euh, lu yaakaaru la mooy waral tur yi ci dégg mu nekk loo xamante ni boo ci dégg rek daanaka day day day am lu jeexital ci euh, choix bi ndax nit ñi dañuy fexe ba tur yi ñuy tuddee xar yi boo xoolee xar bi ci taaramit day méngoog tur bi tur bu neex daal dañ koy taamu ci euh, xar yi. suba suba la ñuy am 10 ans ñun prestige bi un an suba la ñuy am un ah macha allah loolu day mbégte la gis nañ. liggéey bu bi nga xamante ni yéen a ngi koy liggéey ci espace médiatique bi nekk xam na ni euh, Thiès Euh, man maa ngi leen seetloo ci yenn euh, manifestation yu am am solo ci yu mel ne fulku bi boo ko tuddee ñu gis ni ngeen ko doon def di ko jàllale en direct mais bis bu nekk la fay xew ngeen di ko wane loolu rek doy na misaal wala doy na jeexital que ni yéen a ngi liggéey liggéey bu rëy dinañ suivre seen i plateau dinañ suivre li nga xamante ni ay xibaar ak lépp loo xamante ni yéen a ngi koy wisaare mention mais di leen souhaiter joyeux anniversaire par anticipation loolu liggéey boobu ku nekk Thiès gis na ci boppam rawatina ñi ne ci diaspora ndeysaan Ngora Ngora mooy wax noonu chargé de communication réit regroupement des éleveurs intensifs de la région de Thiès ñoom na ñu leen di xaar waaye Mame Binta Mame Binta taxaw noonu ndeysaan kabar na Mame Binta kabar na Mame Binta nag dafa sawar boo ko xoolee xam ne daal am toog genn jàngoro waaw xar yi moom wax dëgg seeni borom jël nañ seeni ay matukaay ndax euh, bu ñu delluwaatee tuuti ci ginnaaw amoon na tuuti ay jafe-jafe. ndeysaan moom day tag rek. à mais xar yi booy xool bañ juddoog léegi ñu si bari dem nañ ko. waaw naag ngi ni. naag moom macha allah gis nga ko. moo ngi dem noonu. xar bu tey la moom tamit dal la. muy dox ndànk ki koy woo yor ko. boo ko xoolee gis nga ko ak ginnaaw gi yëpp. daaw daawul yow turam. ndax xamaluy ndaak. laaj naa la ko sekk ndaak mooy ndaak waale. bu ginnaaw jàkkee rek am nga ndaak. waaw ah, looloo tax ñu kon jonga ñàkkul daagu waale. xanaa ci ginnaaw. waaw loolu éleveur bi moom critères yi muy xool euh, weesu na loolu ndax xar bi yow loolu ngay wax taat wi ci ginnaaw fàllare la ko éleveur di wax waaw nga xam ni macha allah boo ko xoolee. Euh, xar bu nar a rëy wala bu waree wane ay misaalu rëy manees na ko xame foofu manees na ko gis foofu ci moom loolu mu def geen ba nag mooy kolkol da ko kolkolol daa kolkolol geen waa gis nga ko loolu lépp booba dafa bëgg tuur dugub waaw mboq meeg euh, repas bi moom la bëggoon a génne mooy waral buy def loolu day yéeg yëkkati genn gi. waaye daa mel na ko yar nag ndax xam naa ni ñun gis daal tax na mu téye boppam. seen xar seen ay euh, euh, loxo xar wax lay lekk jël dara loo xamante ni lekk la. tàllal ko ko mu tàmm di lekk sa loxo ngir mën a am ak dal mën a am loo xamante moom dina. nekk lu lay bàyyi xel. tëlin de moo jug noonu waaye tëlin dama yi dañoo tàccu man tëlin dama yaakaar naa def exploit la yaakaar. waaw xam nga xar yi moom ku nekk day am supporter waaw da nga gis ñoo xamante ni dañuy déplacé wu ànd ak ak seen i mooy waral à chaque fois suñu yëkkatee xar yi dinañu mën di dinañ mën di leen di tàccu di leen applaudir mais xar yi fi nekk yëpp mérito nañ. tëggal mérito nañu tàccu leen ndax le fait que nga nangoo bokk ci compétition rek loolu loolu mérite la. di ko xool noonu taxaw ñoo ngi koy raay nag. waaye boo koy xool daal rëy rëy leen rëy. waaye nag gàttul. moom xam naa bu doon nit ma tuddee ko Modou rëyul waaye gàttul. waaye jom ji bari na. boo ko xoolee xam ni macha allah ñàkkul exploit bu mu def ba tax ni bu mu ñëwee. te li ma jaaxal boroom da koy xool di ree rek. borom da koy raay rek man loola ma jaaxal. ree gi mi ree nag laa xamul ree lan la gis rek xaw ma daa siñ xaw ma day ree en tout cas ay bëñam a ngi feeñ waaw Malika ngoog Malika Kër Massar yëmbal buun Malika ngi noonu ndeysaan car car rapide yoo Malika montagne Kër Massar buun Malika ngoog gis nga Malika noonu yaakaar naa ne ab ab dëkk ca Dakar lañu Malika gisoo ko Malika nga taxaw ndeysaan ma ngay meem ca kanamu jury ba gaa ngi koy nafa di ko xool du xool baat bi du xool mbàdd mi ak ndodd mi waaye du xool falara gi mbokk yi du xool mbaa nopp mbaa ba ñu fokkul dam na ndooy signal sax fan di ko Ndeysaan Malika taxaw noonu. Euh, Malika yëmbal. Malika yëmbal Malika benn barak. soo noonu Ndeysaan. waaye nag Moura. ndax ndax ñun daan def ñun bu ñuy gone. daan jël melentaan di ko teg ci bopp xar ngir ñuy mbëkk ndax nañ ko def xar yi am ñu leen ko defam déet. waaw seeni borom. bu ñu sañoon gis nga bala ngay xam dëgg-dëgg xar yi éleveurs yi am na fu ñu leen teg nga gis xar euh, wopp ci dem jëndal xar yi ay ngir ñëw Euh, faj la incha allah xar bi ñu ñëw ah, euh, taaru na lool. mooy moo ko la cat. waaw laaw la cat de wax dëgg fa yàlla gis nga ko fanu baa ngi noonu di upp nga xamante ne tey day mel ne lu fi jaaroon ci ci ci wàllu euh, mbalit mën na koo bale fa fanu boobu di yëngatu mën na koo bale gis nga ko moom tamit ñu lu na xar tëbu na mais également karaw gi gis nga ko ci pooj yi mi fay nekk ba léegi karaw xale gi gis des na fa. mel ni lu kër leen laaw la catangoog ndeysaan xam naa nag may mujjee défilé ci catégorie bi may yuus ndax yaakaar naa ni ñi fi nekkoon ñëpp défilé nañ waaye laaw la cat dama ko dégg rek sama xel ci Ousseyn Ndiaye Ousseyn na way roy ca laaw la cat maam Cheikh bu Oudé ñoo ngay rappel na xale war a génn buy demee. waaw bu wax jigéen wax góor ginnaaw boo xamante ni catégorie bi mooy. xar yu jigéen yi foqagul ñu ngi woo xar yu góor yi nga xamante ñoom ñoo foqagul ngir ñu jege si ndax bu lii paree ñoom ñooy ñëw. ndeysaan dégg nga loolu ñooñu añoo yi. ndeysaan añali añali kon dañuy dañuy ji. léegi jury bi càmbar nañ leen noté leen léegi nag li des. mooy moo des. léegi verdict bi kañ lay daanu. waaw bu dee catégorie yii nii suba la seen verdict di di génn. ndax ñu tàqale leen pour ñu tàqale leen dina métti lool ndax xale dañoo am niveau dañoo tolloo xanaa daanaka ay ay ay ay ay ay euh, ay ay potentiel. ndax a dëgg ko ñu woo. dëgg ki ñu woo bu sa baal yi maam bu sa baal yi gàcce nga alaama. am na 11 mois. da nga Boussa Balla lay dugg si nii Boussa Balla lay taxaw nii. moom kay boo tur yi du hasard. soit day nekk koo xamante ni bi muy judd. soriwul ak xew-xew bu amoon wax naa la ko. mais également soriwul ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ah. jëflante muy wàllu éleveur bi. ka ko jox xar njabootam da leen di tuddee tur et cetera léeg-léeg mu tombé xew bu mag bu am ci réew ñu jël xew-xew boobu duppee ko ko ba nga xamante ni loolu mën nañ ci lim ay turu xar yu bari yoo xamante ni noonu lañ amee tur. ndeysaan bu bu sa baalee taxaw noonu ñoo koy raay waaye yeyoo ko yeyoo neexal jour bi neutre lay doon voilà voilà boo gisee mën nañu àgg waaye ay mbuute waroo mën a ci jour bi waaw waaw même laajte sax mën na doon ci jour bi waaw nan la añ añal yaa ngay dem añal yaa ngay ñibbi ndax euh, wax dëgg fa yàlla génn nañ yàgg nañ jury bi xool nañ leen war a xool noté nañ leen day mel ne fi mu ne nii li xaar suba final yi pour man cee àddu léegi nag ñu ngi woo beneen catégorie bi ñoom la ñuy woo dégg nga ci gouverneur dégg nga ci delta dégg nga ci dégg nga maam tur yoo xamante ni ay papa ndaw tur nga ci euh, dégg nga ci tur yu bari yoo xamante ni tey benn bu ci ne boo demoon ci borom laaj ko lu waral tur bi dana la wax raison bu tax mu tuddee xar bi boobu tur léegi nag champion yu jot a dugg si day mel ne ñoo ngi vérifier ndax seen ay bëñ euh, foog wala foogul loolu la bi ñëpp a. Ramatulaay demal ma ca xar yaa ko xool ma ñoo xool seen bëñ yo yéemal ku yu ndaw yi xam naa sama mbokk téléspectateur yi ñu ngi leen di bëgg ndeysaan ñu ngi noonu di xool xar mi ndax soxla déet bi soxla noonu Ramatulaay jaajëfal naa la yaa ngi ci biir kuur yi waaye may toog bala ñu laa daj ndeysaan ñu ngi koy seet xoolal ñu ngi seet xar mi foq na am foqul si noonu sama kanam nga ca ñoom loolu la ñuy vérifier Ramatulaay du ay foq bo gisee mi ngi leen di topp ñu génne xar yi di wane seen bëñ yi ba nga xamante ni ëllëg xar boo xamante ni foofu nga yow dañ lay disqualifier loolu nag ngir bañ njuumte am mooy waral jury bi dinañ délégué superviseur mu nangal xañ bi xar bi ñu xool béjjën yi maa ngi fàttali ni béjjën yi euh, bëñ yi niñ koy xàmmee mooy euh, xar bi bañ bu bu sewee bëñ yu sew yi mooy xar bu fokkagul bu foqee nag bëñ yi day nekk bëñ yu dijji ndaysan way bo len xolé sen rafetay kar sha allah nga xamni te dugaguñ seen at ñom ñi nga gis ni way ñi boko xolé ci luy gëna a yaakaaru ay xar yo xamanteni amaguñu at waaw amaguñu at bala la buñ amé atit ci lay yam yu ci bari ci buñ len doon xayma ci walu âge mais mu nekk lo xamanteni catégorie la bo xamanteni mom euh, bu ko xolé rek da nga xam élevage dëgg-dëgg fan la jëm fan la jëm ndax moy

pour wan leen ni deux ans après xar yi dinañ ñëw fii dëggal seen bopp yu ci bari bu leen fi yàlla bàyyee. nguura gannaaw ba ñu xoolee xar yi xool seen bëñ xool fokk nañ wala fokk ñu ñëw di leen ndeysaan ñu taxaw défilé jekk lool koo si gis ndeysaan ma nga ànd ak cawarte sawar lool te kenn du ko sa at loolu jàngat mi la lay doon. a jàngat bi mooy que ni catégorie bi bu am am solo la ndax xar yi tey euh, amaana ñu ci bari seen ay papa lañ àndal ñëw ci foire bi.

Supervisor na superviseur yi nag yaakaar naa ne am na lu indi coow fee ñu ngi xool yaakaar naa ne xar moomu bëñ yi est-ce que bëgg na nan ko sàkkoo ndax def nañ délégation ñëw ba xoolandoo. ñëw xool vérifier ndax bala ñooy dàq sa xar du kenn nit rek moo koy dàq il faut membre jury bi ñëw comme ay superviseur dañ ci bari ñoom ñooy ñëw saytu loolu xool effectivement que ni xar bi liñ ci gis mooy que ni ba euh, foog na ñaari bëñam mooy bëñu kanam yi. ndeysaan boo leen xoolee nag xam ne yi yi tabaski tax koo jug de yii daal xam naa ni ren am ndawal jaay am njëg koo may mu jël ñooy laa dumi gisoo leen ndeysaan ku ci kabar rek nga xam ne nag ndeysaan juddu ñun la fan la war a juddoo waaye toppatoo nan loon waaye li ma jaaxal daal ci yéen mooy médicament xar yi moo leen gënal médicament nit ñi. waaw lii balaa may ñëw foofu xar yi tey bari na fi yoo xamante ne seen papa. manam ñu ngi dëggal seen bopp ci compétition bu mag bi. Ah. ñu ngi dugg nañ compétition ba pare yabal seen doom euh, seen doom mu ñëw teewee ko kon loolu lu amaam solo la. wóolu sa bopp de mënul weesu loolu. waaw moom day xam naa ni day concours moom euh, luy neexal la élevage euh, nga gis ku nekk ñëw di loolu mais xar yi boo waxee sànq ci wàllu médicament éleveur bi boo bëggee gis ni am nay jafe-jafe. du moom bu feebaree mais bu xaram tawatee la nga yëg ni éleveur bi dëgg-dëgg am na jafe-jafe. gis nañ sax ñu takk ko ak wéyëng te wéyëng baaxoon ci fas ana lan moo war a ñu takk ko wéyëng bi. waaw xam nga lu fexe xar yi taaru éleveur yi nañ ko def. génn nañ fi xar bi ñëkk a dugg euh, euh, dafa foq moo tax dis euh, disqualifié nañ ko am na beneen xarit boo xamante ni disqualifié nañ ko muy ñaari xar yoo xamante ni ci compétition bi lañ bokkoon waaye disqualifié nañ leen ndax seen ndeysaan boo ko xoolee wéyëng gi daal man yëm na ma ndax wéyëng man ci fas laa ko xamoon te wéyëng man naa tiiral xar waaw boo xoolee xar bi euh, ni mu mel ku nekk xam na ni mag ci sason laadum euh, bu ñu tàmbalee yor xar duñ ko ba mu egg fenn fi dinañ ko andi xar bu ñuy wax aras mooy défilé nii ndaysaan ramatulaa ñoom mooy défilé nii ndaysaan aras nag tur woo ñëpp ko bëgg turunya bego-bego, aras wow, aras mau turu kawela kawe la harbi allah defile, tey ani eh, bi ñëw défilé ki ko andi gis nga ko sol delo na mbiri ci cosaan xar bi gis nga ko min koy ray danaka téyatu ko day ray rek mu taxaw fi yaram wi karaw gi yep danaka siiñ sama xal dem na ci xar ma nu raf xar ma nu yonti Ibrahima xar mel ni lan ko moo tax xar tey ci moom baax na lool. waaw xar dafa teral doomu aadama xar dafa ñu jot bakkanu doomu aadama tey bu fekkoonte ne du woon ak xar ak ndigal li suñ boroom joxoon Seydina Jibril euh, tey day mel ne ñun ñii ñëpp amaana duñ mucc ci tabaski moo tax nag éleveur bi day mel ne. loolu jeexital boobu mu am ak barkeel gu ko suñ borom barkeel mbooleem yonent boo xamante ni jaar na fi maanaam sàmm nga yor nga ak jur sàmm loolu moo def tey jeexital bi ba may yaakaar ni xam naa Euh, bu ñu fi dellusiwaatee waa prestige yëpp Thiès prestige di dinañ nekk ay éleveurs rawatina Ramatulaay mi nga xamante ni tey daa ñëw zonal podium bi. ah Ngoda a gannaaw ba saa ma génn ci Ramatulaay nga dellu ci moom waaye aras daal mu ngi ca jour yo ñoo ngay xool wet go waaye bu li ma neex ci aras daal day kolkolal gën rek taxaw tent kàbbar xool penk bi. waaw tàmm lu neex ak bëgg lu neex mooy waral xar yi bu ñu leen di raay. ndax seen borom loolu rek lañ jàpp ni moom la ñu def yëg ni ñoom ñu ngi dund ak seeni xar mooy waral à chaque fois su ñu nekkee ak ñoom dañ leen di teg loxo di leen raay loolu lu baax la loo xamante ne la day tax sa xar di dal sa xar di ànd ak tekk sa xar maanaam di la miin nga xam ni boo duggee du rabee du tëb du daw di def. Euh, euh, ngóoda nag ngóoda ngóoda loolu ko nit sax boo ko raayee mu taxaw waxuma laakum xar te waxuma la nag raay dong waaye fa nga ni raay xar yi foo ko koo ko mu taxaw. waaw loolu souvent day am am na éleveur boo xamante ni euh, soxna si da ko mas fekk ci kaw muy raay xar mi mu wàcc mu mer ni ko yaa ngi fi bàyyi nit ci suuf dem nekk ci kaw di raay xar nga xamante ni loolu luy am la ci éleveur xara rek yéen a xara

te ndeysaan gannaaw oras ñëw na taw féex moo rambal ak topp ci gannaawam. gannaaw ba aras moo rambal taw rek ñëw rambal topp ko dar ko ndeysaan ñoom ñaar ñu julat ba tey lañ waxoon ci bu compétition bu njëkk ba rek jury bi am nañ jafe-jafe ngir départager xar yi ndax tey yow xar yii de ku la woon rek xoolal boo ci bëgg. ñu may la yow yow daanaka di fu nekk euh, euh, di nga teg sa loxo wala di nga am jafe-jafe pour wax ni bii laay wax wala bii laay jël. li ma wërte wóor daal xam naa ni xaar yi man def ma ci am xel ndax xam naa daal la may wax ba am ca lu sat lay doon ndax ñu leen seen borom bëgg ba dee raayee ko fóon mayee ko du yomb. waaw loolu loolu lu am la mais nag euh, wax dëgg buñ doon wax. lu jëm ci prinsip do principe numéro 1 moy na nga bëgg xar so bëgge xar jappal ni dara jombatu la dara nekkul loo xamante yow euh, wees na pour loolu fi ne nii fii nga tolloon tolloon nañ fa ay jamono mais boo bëggee tey saafonteeg éleveurs yi di nga di nga di nga bi édition bi man moo def éleveur wala moo ma ma yor li gaaw nga boo wutee xar mu ndaw may ma ko ma doon éleveur ngu da bàyyil wax ji loo ci mënta xam daal man de boo temps laa wax tawféex beau temps laa ko tuddee man ndax macha allah boo ko xoolee taar ba taar baa nga fa jëm jaa nga fa waaye tamit wér gi yaa nga fa ndax xar mi ñëw rek ni làcc daa ñëw ndaysaan wane yëngu tëm te man la dama koy bëgg ci xar lool. sa bañ na ko bagaay dañ leen lalal ay palaat. ñu yë tapis rouge xar yaa ngoog. dañu bëgg xar bi bu taxawee. day gën a neex a xool dinañ xool wey borom toppatoo na ko dinañ xool tànk yi position yi dëgg-dëgg xar bi ndax léppam yegsi na loolu yëpp jury bi dañ koy càmbar moo tax xam naa ne ñoom danañu danañu danañu sonn tey ngir départager xar yi ba mën a wane xar yi. ñoom moom kenn du leen mesurer ñoo añoo yooyam kenn du leen mesurer waaw mook añeel yi jàll sànq ñoo yem ndax ay xar la yuñ foqagul moo waral saa su ne ñoom dañ leen di lool ay ndaysaan gis nga leen noonu ñax mi ngi noonu ndaysaan taw feexa taxaw ci kaw boo ko xoole boo ko xoole ah bergerie Ousmane Sam moo robine Xaadim waaw moom moom tawfeex waaw bu mu tawfeex kuy baayam maxa faal boobu maxtum ak mu barak waaw ñaa ngi fii Robina Khadim cité Senghor. moom dañ soog a ñëw soo yow ci foire bi. waaw dañuy door a ñëw ci foire bi quoi. waaw depuis boobu ba léegi dañ dañoo nekkoon foofu di liggéey. ay waay xar ngoog. aras aras dellu na ci kaw. aras. alas dellu si na ci kaw. li tax muy dellu si mooy dañu andi planche pour bëgg a xool xar yi ndax seen tànk yi dëng na ndax seen wey yi ndax lépp li nga xamante ni bu dee suuf si la amaana am na luy nëbbu. aras nag mel ni moom faal ma dëgg faal ma dëggoon Demba borom ma ca ñam ba Gila Diop faale penda ni ci gara Amar Fall Seer Ndiaye jooju kon Faal Ndiaye daamay maam Seydou bu Ndiaye ngoog Baye Fall la Baye Fall la Baye Fall la ah. maam Seera Fall xale huit mois la xar mi am daamay maam Seydou bu Ndiaye Oude Diagne moom maam Cheikh Oude maam Cheikh maam lamp babul muridino ma dëggante ba borom nga ca ñam bëgg jo faali pandami ci kara oh mam Cheikh haw nonu day sam bu dul ak mom dara do yar gis bi mu dikkee daa daw mam Cheikh bim dikke dafa ñaaw dafa rombal daw wa dafa daw ndax xar bi da nek en activité sawar gis nga tek nañ ko ci planche bobu nga euh djublu way bi moy xol tanki ndax lepp normal na ndax lépp jaar na yoon ndaysan xam nga xam nga limu def jom ko ko tuddo tur mu jël ci moom juróom ñaara jikko kini ko tuddee koko wane lamp babu mouride ne ma dëggante dama tur wi sax man na nek leneen ndax kiko mom di Oudé Diagne amna dom ji mu tuddé mam Cheikh batay man na nek ni xar bi moom la ko tuddé way lépp falay téré ci kaw lay téré rek. fofu lay téré ji mom fofu lay téré ji. motax tax ko borom nga ci ñam bëgg la ñu faalu pandam ci grand. mu yor robbu bu noir bo xamanteni ni macha allah boo xoolee li nga gis ni lu amam solo la. ndeysaan maam Cheikh mooy borom robe noir bi. Ah, oh, Pam Ndaw ndeysaan Pam borom borom borom la ko tudde borom boppam la ko tudde Ramatullah xar moom ki moom boppam la ko tudde Pam Iba moo xam moom tudde war ko boppam waaw Pam Ndaw a ngi nii xar la boo xamante ni dëgg boo ko euh, xaalam bi sa bi xar bu sawar la ba pare am na dayo lool ndeysaan ba ndaw daal kuy xalam di ca jaayu am sam xar ju julli ko yar ba mu toll nga tuddee sa bopp fu lay jaay da xar gisoo ko nu bergerie Ndaween famille macha allah mais na mais nag nguuda nguuda baal café gi ba nga ko gisee ba tey amoo jàmm Ngouda xar mi man li ma gën a nekk mooy baat bi lii daal ci baat bi mooy lan. waaw lii boo gisee collier la buñ ko takkal mais collier bi dafa am li nga xamante ni mooy cloche nekk ci di yëngatu xar bi buy dox da ngay gis ni dafay yëngatu bu baax a baax macha allah. moom boo jógee ca wéyeen goog nga wax yéem ca kaw baat ba la kujur ga lal noonu der ba lal. loolu moo tudd fano nga xamante ni critère de beauté yi ñuy seetee xar taaroom daf ci bokk. xar bu la ëpp fanu day mel ne éleveurs yi ginnaaw bu mensuration yi jàllee mooy cër yi mooy njoolaayu xar bi mooy guddaayu xar bi mooy dayo xar bi euh, critères yi ñuy seet bote bote lu ci bokk la muy lu amaam solo luy rafetal xar luy dolli taar xar. waaye Ngouda xar yi ma gis ku ci yàlla dimbali nga taw ñaari nawet ku ci yàlla dimbali ba nga taw te ñaari nawet Ngouda ragaluma laa yóbbu Fran foire ba ne France. waaw waaw Versailles day. Euh, réew réewum Sénégal daa bokk ci réew yi nga xamante ne dañu am euh, tawat gi ñuy wax peste des petits ruminants day saa yu fa mën a dem xoolal kii nee na mooy Ngathie Fall Ngathie ngoog borom daaru ak ñaam bëgg lañ joo Fall penda ci garaaw Ngathie Fall mu maam Cheikh Ibra Fall ngoog gisoo ko noonu ndeysaan Ngathie Fall Ngathie Fall de boo ko déggee xool ko xool ko ma déggoon Demba ma faal ma yaa seen mu ci mbul ngàcc faal a ngoog xool ko ma ngay wongu de ma ngay wongu ndeysaan boo raaya mu taxaw yar baa tax ay waay ngàcc faal a ngi ni ma faal ma yaa seen mu ci mbul danay maam seeram faal mhm. gis nga tur yooyu ku ñuy wax Baye Modou Dem moo ko andi nga xamante ni boo ko dàqee day dellu ci baay Faal gi muy lu am am nga xam ne tur yi éleveurs yi defuñu ko par hasard éleveurs yi defuñu ko par hasard ndax dañ koy teg ci foo xamante ni lu yaakaaru la. man daal lu ñu wax ci Baye Fall yi gëm naa ko ci xar yi man la xarum Baye Fall foo ko fekk day ànd ak àll sànq maam Cheikh Ibrahima bi mu diggee njàpp ràmbal nga xool ko da xam ni kii dara jàng ci moom waa ñu ni doota waay bu soobee ñàkk fa ñëwee da koo semmal nguuda. waaw mooy lu neex lu am am solo. xar yi wane nañ ni seeni borom toppatoo nañ leen mais également wane nañ ñi xar yu am avenir lañ ndax ni nga gis ni gis ni yaakaaru na lool waaye su ma su ma jumul su

docteur ba ma ñëwee ba ma ñëwee xool xar yi ma dëgg ci Cheikh Rama Fall dëgg ci ŋàcc dëgg ci aras dëgg ci ndeysaan boo temps sama yaram daa daw. ah loolu moom euh, éleveurs yi euh, tur yi ñuy joxe seen xar yi ku ci nekk day wane peut fi nga féete rek Baye Fall yeeg Mouride yeeg Tidiane yeeg ñi nga xam ne ay car car le max yi am na ñoo xam ne seen waa kër la ñuy tuddee. donc ku nekk facette bi nga xam ne ci ngay yëngu tur yooyu ngay jël rek di ko jox sa xarit am yoo xam seen xarit lañ koy tuddee donc loolu aussi dafay wane nit ki cofeelam ci li mu nekk en général waa ji bu dee wax na la turu xaram rek da lay wan daanaka identité am ci lan la bokk ci lu mu bëgg ci lan lay def. waaye xar yi ma seen day sant kenn duggu ci at. vous wa loolu yeb Vous moy evolution permettre nañu ñu mëna def ci 8 mois mu mëna def kilos donc day ni xar bi mat tabaski gis nga li bu avez jaratul nga yor ans pour am xaru tabaski bu baax champion dañ leen la reproduction li ci que nga xam mëna ñu vous permettre rapidement ñu mëna suffisamment de viande

wax dëgg ñi leen fi andi euh, pare nañu pour euh, maanaam euh, fees lool ci wàllu concours bi li ñuy wax takk ci rib waaye suturon mi ni ma ko gisee ni ma ko gisee bakkan ba daa de waaw loolu ci critères yi nga xamante ne dañ koy xool ci xar yi Euh, nga xamante ni dañuy dem euh, li ñu wax bopp bu damm yaa ngi koy dégg mais gis nga bopp bi xar bi ni mu mel mais macha allah muy lu yaakaaru lu am solo gis nga ko planche bi ñu teg mooy wane xar tànk xar yi nan la mel loolu lépp euh, dañ koy bàyyi xel muy lu am am solo mais xar bi Saint-Louis la jóge papaam xanaa ñëw na ci foir bi àndaale seexam mais également àndaale beneen sëram loolu lépp nga xam ne ay mbir la yoo xamante ne boo gisee xam ne élevage daal am na tànki jéego yu mag a mag macha allah. waaye Ngouda waa Saint-Louis am naa ci ñoom yaakaar ndax lañ fi présenté gu lépp ay ay champion lañu. boo xoolee citron mi ni mu taxawee sigi jonn kar macha allah ràcc tànk yi rambal doju ah la ca bàyyam xaw ma kuy bàyyam wala la ca bàyyam a ko ca moom. waaw euh, catégorie yi moom li ma la wax rek sànq jury bi am nañ dinañ am jafe-jafe ngir tànn ndax tey koo ci ma may la. Euh, bu jëlee benn bu demee bay dem dina wàññeekuwaat ni xaaral ma tam changé ko ak beneen nga xamante ne lu doy waar la fi mu ne nii gëmm jël lay doon rek ay points yu ndaw booy xool moo leen di différencier. daagu waal ba rafet na daagu ba rafet na ndax daal ràcc. ndaysaan nguuda gannaaw ba gaay ràmbalee fatuwaat gétt ga am na yeneen produit yu génn. waaye maa seen mbër moo xam bu doon bu doon làmb ko Modou Lo. rôle guddul. waaye gars yi bàyyi nañ ko cër mu ngi nii taxaw sama kanam. waaw xar yi nga fi gis ba tey ñoom ñëpp ci même catégorie bi la ndax catégorie bi du ci wàllu âge dañuy wax ni xar bu foqagul moo tax mbote bi doom bi juddu sax ku mu neex nga andi ko. ñoo seen bëñ nag. huit minutes borom simis boobu ngeen di gis borom simis boobu ngeen seen guuda ma ngay sëñ loo xar ya fang. comme ci sëñal xool say bañ xool noo taxawee. waaw ah, président commission scientifique bu euh, rettel bu Tiwaawoon association bi ne Tiwaawoon ngir bëgg maanaam euh, xar bi euh, ñu ko ba nga xamante mom bu sayto ba gis ni xar bi foq na day woowaa jury bi ñu ñew fekk ci ko vérifier effectivement que ni xar bi foq na ñu disqualifier ko borom dootul mëna bok ci joŋante bi. ah xar bu ci foq rek bo ñëwee ba dë. tricher ba duggit bu la jappé da lay gën ko disqualifier. waaw léeg-léeg sax du doon tricherie mais borom day faté vérifier ndax dentition bi. Euh, normal na légui nak day japp ci âge am ni xar bi am na de mois rek bu juumee andi ko nag bu yegsee ci la xool ni xar bi lay wax dëgg warees na ko mën a retirer ndax catégorie bi bokk ci weesu na ko. waaye man li ma jaaxal li ma jaaxal daal nguuda mooy cumbur bi tef yi ci biir nga xamante ne daal daa mel ni xëppeegul ci weenu yaayam ñëw ci défilé bi. waaw kii de boo ko doon xool ci wàllu âge. diggante deux jàpp trois bu baree ba bari moom lay am nga xamante ni euh, moo def moom boo ko xoolee moo xar yu mag yi ñoo bokk catégorie naam ndax foqaguñu xëy na nag euh, ci wàllu critère âge bi mu wax ak ni mu mel dinañ gis ni éleveur wala euh, jury bi dinañu atte kémtal seen kémtalaay kàttan ba xool xar bi nga xamante ni fu mu toll dinañ ko mën a xanaa defal loolu ndeysaan Moussa sama cameraman ba relevel na ma sa jabar ja Ramatulaay ma nga ma jubal nag sa booy ñaa mu jekk lool waaw macha allah gis nga ko booy ñaa ñëw na xar bu ndaw la xale la mais gis nga ko wax dëgg fa yàlla critères yi ñu wax yëpp waxoon naa la ko sànq ni la deux à trois mois du ko génn mais boo ko xoolee xam ni xar bi Dakar la jógee kii nga xamante ni moo ko andi euh, di Alassane di benn seex seex la boo xamante ni euh, Ousseynou ñoom miin nañ leen ci élevage bi mais également gis ko macha allah. dëgg naa booy ñaam ñu Reug mooy baayam doomu Reug Reug la. Ah, euh, muy xar yoo xamante ni yu sotti lañ yoo xamante ni yu def ay jaloore ci wàllu production lañ. mais également ñu nekk xar yoo xamante ni gis bëgg la ñi moom ñàkk leen a moom rek mooy loolu boo xoolee karawam gi xam ni xale dëgg la. Ngoda xanaa xamoon doomu mbër jàngal bëre. Boy Niang mbër la waaye Reug Reug mbër la boo demee ci lutte sans frappe le meilleur lutteur il s'appelle Reug Reug te boo ñëwee ci lutte avec frappe yi jox nañ ko cër kon ya Reug ko jur gisoo ko noonu ndeysaan mu ngi noonu taxaw Boy Niang booy la booy la waaye booy la waaye gars yi bàyyi nañ xel bu doon lamb ji man leen mooy Modou Lo réewul guddul waaye bokk na si géew bi de mi ngi noonu taxaw ndeysaan gaa nga gaa nga ca booy ñaa di raaya ko xool rek. waaw borom euh, mooy raay pour may jury bi euh, xar bi tekk ñu wane ko xar bi gis nga ko dañuy wane euh, profil bi mais wane li nga xamante ni mooy wetam wane xar bi bépp ay cëram ba nga xamante ni leer na ñu doog ñu ko demal. jury ba nee nañ ko c'est bon. waaye turandoon moo jàpp Sa Thiès xaw koo rey nan xool ku ci topp. booy ñaa ndaw na waaye gaa beneen ko xel. Moubarak Moubarak. ñëwal Idrissa Gueye nuyu naa ko. nuyu naa Idrissa Gueye. nga xamante ni barkeel lii ñuy def barkeel la rek Moubarak ñëw gis nga ko noonu muy dem moom it xale la. day mel ne bi mag ak xale ñoo ko seq. xoolal Moubarak xam nga tey boo demee parcelle di nga fekk Moubarak voyage Idrissa Gueye moo nekk la nga xamante ne nii mooy propriété ba. du yóbbu lu ñuy màkka. ñuy ziar Seydina Mouhamed mu ñëw kenn du manqué bagage bu mu wóor moo tax xar mi taxaw bu doon ne Moubarak te Moubarak moo du arab la. waaw dinaa la ci wax loolu bari na ci ay ci élevage bi ñoo xamante ni suñu borom dogal na seen kóllëre ci xar la xamante ñoo bokk benn bis wala benn aj bu ñu demee penku ziyaare ji sallallahu alayhi wa sallam dem baytilaay nga xamante ni éleveurs yi daanaka teraanga bu ne suñu borom dogal na ko ci seen diggante à yi. ndeysaan nguuda xam naa ne bii daal boo ko yeewaree ramatulaay tabaski du wax dara de. waaw bii moom ëpp naa tabaskee dañ koy andi def ko euh, xam production muy jur ñuy jaay ci doom yi di ko ci teral. aywaay Samba Ndaw nguuda loolu yaa seydaa yaa seydaa sa doom ji jar na ci foire bi. macha allah yaa sa doom ji jar na ci foire bi. éleveur yaa ngi ko topp gauche à droite waaye nguuda teg na ci loxo. ndeysaan ñoo nga noonu.

Fall Trondo Trondo Babacar la ni ko moom moo nekk suñu ginnaaw nii euh, day mel ne ñoom euh, macha allah. Euh, ci catégorie fi jaar yi ci bari seen ay xar dugg nañ fi muy lu am am solo ndax boo ñëwee foir andi say xar dugal leen ci bi wane nga ni yaa ngi bëgg a évaluer li nga liggéey ndax liy jubluwaay bi du dara lu dul wane sa xar ndax def na ay jéego mais également ndax xar bi lii nga xamante ni mooy catégorie bi muy euh, compétiré moom am na ci ay yaakaar wala am na ci loo xamante ni ay avantage la mu exprimer wu ndax tey bari fi xar boo xamante ni bi mu génnee boxam ñëw mbër a seetlu a gis mais boo xamante ne nekk na ci bi ñaari xar yi dañ koy làq ba doo ko gis. waaye bu ñu doxalee ba ci kaw ndax boo xoolee Dame Fall ni mu taxawee ki ko yor ko yor nag ànd naa ko bu yar moo tax ki la yar ni mu mel rek ngay mel boo xoolee Dame dañuy teg ànd ko bu yar bien vrai que wóor gaa ngi. waaw xaru yar moom buñ ko xasee wax mooy xar boo xamante ni yar baatu yar bi bu duggee lépp duggaale na ci moo waral xar yu dal dinañ ci bari mais am na ci xale yoo xamante ne nag giir goo dem fekk fa loo xamante ni moom euh, day yëngu dañuy rabe dañuy loolu mais xar yi boo xoolee xam ni tàmm nañuy loxo ndax